di waññee ci Mauritanie téeméer ak juróom-ñett fukk ci lañu toll am na ci ku ñu naan Amadou Bari ay seedeem ak TFM mooy su weesoo portable bi mu indaale dib téléphone dara euh, desul euh, àndul ak moom daf ko ba ginnaaw moom coiffeur la woon ca Nouadhibou reportage Fatmata Ba Diafara Ba téléphone portable bi moom rek la Amadou Bari jot a indi ci ay bagaasam ya nekkoon ca Mauritanie moom ak li ëpp téeméer ak juróom-ñetti fukk sénégalais lañu ñu delloo si Sénégal. ñu jàpp nii rek. Euh, yóbbu la comme ça xam nga nga bàyyi sa bagage boo amul xaalis mu ngi foofu xam nga lépp loo amoon mu ngi foofu boo amul dërëm sa poos boo wàccoon roos Sénégal fii doo mun a jënd ndox xanaa kenn may la walla affaire yu demee noonu nga nekke foofu cinq ans wala quatre ans wala mois nga ñëw fii xam nga loolu dafa ñaaw dafa mel ni gënt la ci man man ba tey jii billaahi laata ñu leen di rapatrier nag moom ak yeneen i sénégalais jot nañ leen a tëj ñaari fan ci kaso. yóbbuñu ci prison bi tey ñu foofu ay deux jours xam nga joxuñu kenn lekk joxuñu kenn naan tamit képp koo xam ne daa yor nga sa weccet boo gisee benn policier boo xam ne dafa xawata ne après nga yónni ko ñu jëndal la comme ça man su ma jënd benn butel Evian après man gars yi ma dendal ma may leen ñu naan képp ku mar daal ñu may ko mu naan. benn bidon cinq litres lañ leen di jox ñu ne képp ku bugg a tuur ndox na na ko def foofu xam nga loolu beneen la. am lu toll si ñaar fukki at ak ñett Amadou salon de coiffure la yoroon ci Nouadhibou di ñaareelu région bi gëna a mag ci Mauritanie ginnaaw Nouakchott. bi ma ñëwee ba fii woote ma ne mbaa mbaa bi daj ñu ko kon maa ngi ak caabi fii affaire yooyu ñu ne noonu non bi dara nekkatu fa daj nañ ko. am na ay télé ay matériel lépp matériel affaire coiffure lépp am na foofu affaire yi may liggéeyee xam nga ay chaise yu mel noonu. ay kii ay nu mu tuddati ay DVD affaire yu mel noonu matériel place normal quoi waaw lépp lañu ñu yóbbu. demoon na wuti liggéey delloosi ak ay loxo nen Amadou Bari di sàkku ci kilifay réew mi ñu bàyyi xel ci seen i jafe-jafe ndax bu weesoo sax seen rapatriement bi seen i nekkin ca Mauritanie mësut a yomb benn yoon.